donc ñoom bu ñu amoon projet Ousmane ko def na ko alors maintenant référentiel bi nag au-delà des question préjudicielles yi ma wax euh, ce n'est qu'une autre phase du plan Sénégal émergent hmm. d'accord plan Sénégal émergent ni ñu ko tëggee wala plan euh, Gamon émergent ni ñu ko tëggee c'est la même chose pour man y a pas de mal à et il faut s'en féliciter que maintenant ñoom am nañu feuille de route il faut s'en féliciter. kon yow ci ñuy wax plagiat nga bokk. non plagiat ou pas en tout cas c'est la même philosophie d'accord man je sais que c'est la même philosophie ndax bi ma liiree euh, lii bi euh, agenda national de transformation bi da ngay xam ne ne lii ñi ko def euh, ce sont les économistes du courant dominant mooy libéraux yi c'est un économiste libéral qui l'a fait d'accord alors ak ay axes ay projets et cetera xam nga donc yooyu yëpp pour man c'est une bonne chose en tout cas qu'on un plan mm. maintenant mën na nekk luy développer Sénégal wala lu développer Sénégal comme je t'ai dit tout à l'heure c'est pas la question ça dépend de n facteurs dama la ciy jox quelque et loolu aussi bëggoon na naa <laughs> Ousmane Sonko s'il accepte qu'on débatte publiquement ñu wax ci parce que ce son des questions purement économiques te économistes si aussi xam nañ li may wax xam nga euh, madame Thiam da nga ñëw ci situation ba nga xamante ne yow yaa ne on dans un pays en ruine d'accord toujours pour noircir et loolu c'est pas que Ousmane Sonko à sa décharge loolu yow même madame Thiam madame Thiam bu la sénégalais yi faloon demain nga taxaw na li ma fi fekk laay la ndekete affaire yi ni ma ko xayma mel woon noonu nangam ak nangam. Macky loolu la doon wax. Macky loolu la wax ci Ablaye Wade Ablaye Wade loolu la wax ci Abdou Diouf ba même boo demee France actuellement nii premier ministre bu bees bi ñu fal. dafa ñëw ne moom affaire yi jéggi na dayoo moom ni mu ko xalaatoon toll noonu ndekete di yi gën naa yéeme. mooy réalité du pouvoir. Kële Fillon bi ko Sarkozy falee laa dégg mu ne premier ministre de la France mu ne moom il a hérité de d'un état en faillite mu ne mu ne état état France day faillite dem na ba wax loolu ah faillite pour naa def nekk na cinq ans premier ministre gérer France te France yënguwul donc pour dire que. c'est de bonne guerre. c'est de bonne guerre maintenant. question yi ma bëgg ñu débattre ci et qui dépendent en fait de la réussite du projet c'est que boo nee pays en ruine nga mm-hmm. nga ne pays en ruine nga nga ne déficit bi dafa dafa élevé nga ne tu as de dix pour cent d'accord nga ne sa dette dem na ba quatre cinq pour cent non quatre-vingt-quatre pour cent du PIB du nga wax ne y'a des dérapages sur la masse salariale alors euh, donc nga noircir tableau bi sur le plan de la gestion des finances publiques d'un autre côté nga ne pour ce plan bi il te faut dix huit mille milliards dix huit mille cinq cent milliards pour nga financer ko waaw léegi euh, boo xoolee euh, carré bi déjà yow dégradé nga notu Sénégal pour obtenir des financements maintenant les taux d'intérêt yi nga mënoon a lever xaalis seront plus élevés donc le coût de l'endettement am nañu beneen dégradation démb waaw démb standard and Poor's oui. donc euh, loolu c'est normal c'est la suite de des propos du premier ministre yow léegi sa coût du crédit day yokk loolu muy benn contrainte beneen contrainte bi ne nga sa déficit dafa yokk te déficit bi da am obligation ramener ko sous la barre des 3 pour cent du PIB parce que loolu UEMOA moo ko nga ne également sa dette dafa yokk quatre vingt quatre pour cent ko war a andi en dessous de soixante dix pour cent d' accord mm. euh, boo xoolee également euh, nga ne dérapage yu masse salariale bi dafa am également da nga ko war a andi en dessous des trente cinq pour cent par rapport aux recettes fiscales mm. waaw loolu boo ko bëggee def ci condition yi nii nii li ma ma ma décrit dans ce carré euh, impossible nan nga mën a lever dix huit mille milliards. pour financer ce plan. moom il prône le financement endogène dégg nga ko keroog euh, Dakar Arena mu ne bu li weesoo ñu wax sénégalais yi proposer leen ay moyens de financer l'économie du pays. waaw yi ni ñu mën a financer économie bi. Hmm. pour man déjà il a dit que euh, sur les dix mille milliards soixante deux pour cent yi état bi moo koy jël ce qui fait entre onze et douze mille milliards. léegi secteur privé bi jël cinq mille milliards TPP deux mille deux mille milliards donc cinq mille milliards déjà secteur privé bi la ko jox onze mille milliards yi bul fàtte ne impôt la impôt mooy financer dépense publique hmm. donc loolu ci ci Sénégalais lan nar a jógee narul jógee ci keneen ah bu leen foog ne ne onze mille milliards yi. Hmm. day jógee ci ay Syriens wala américain Américains su suñuy poste lay jógee. mooy yow peut-être yàqanal gi ñuy woote. waaw ah non d'accord non yàq yàqanal gi il mu am. moo tax may laaj Ousmane Sonko. euh, est-ce que. day def na tam élargir assiette fiscale. ah non non déglu ma ñu wàññi yi mais ñëpp di fay. eh waay Fatou déglu ma may laaj Ousmane Sonko est-ce que day def plan de rigueur d'accord austérité lay def. ñëpp wala ajustement lay def il faut que mu wax euh, ban la ban option la ciy jël il faut que ñu xam li nga wax sànq ci ne il faut qu'on fasse des économies yan. restructuration la ñuy def pour état bi réduire un peu la masse salariale mën a réduire déficit bi d'accord mën a réduire dette bi loolu il faut mu wax ñu nan la koy defee parce que s'il encore financer euh, l'agenda national de transformation boo mootul déficit bi day yokku dette bi également day yokku mm-hmm. te déficit bi bu kon yokk yokku benn moment day système bi day day exploser on sera victime des Euh, fonds vautour dañ ñëw di ñu prêter à des taux d'intérêt qui sont très élevés bon et que pétrole bi ak gaz bi ñuy wax ne dafay adoucir un peu situation économie bi gëm naa ko d'un côté mais ce sera pas une la palissade parce que la projection du gouvernement sur les produits d'hydrocarbures deux mille euh, vingt quatre deux mille vingt sept c'est cinq cent soixante seize milliards ce qui veut dire qu'en moyenne on aura 177 milliards par an de revenus d'hydrocarbures 160 180 milliards quoi mmh. 180 milliards c'est pas beaucoup je dis pas que c'est rien c'est pas beaucoup d'accord dina am effet d'entraînement mais effet d'entraînement bi ce sera marginal d'accord alors donc pour man y a une forte contradiction entre le cadre macroéconomique global ak possibilité bi premier ministre am pour financer son plan maintenant c'est à lui de nous dire moo tax débat bi am sens lui il da il va nous dire nan lay def pour financer euh, dette lii bi plan bi parce que bul fàtte fàttu euh, Sénégal mooy dëkk bi gën a taxé ay citoyens dans l'UEMOA hmm. d'accord fii nii le taux de pression fiscale bi gën a élevé ci UEMOA loolu je pense que premier ministre xam na ko donc à vouloir encore taxer davantage les Sénégalais day réduire la compétitivité te rek le fait que déficit bi élevé rek loolu lay signifier. mais nee na dafay sànq moom laa lay wax dafay la l'assiette fiscale maanaam fexe ñëpp di fay. mais mais kuy mais kuy fay mooy kuy liggéey mais sénégalais yi liggéeyuñu. et d'ailleurs dans l'agenda de de. la l' agenda supprimer yooyu yëpp. tam mais exonération yi nee mën na dem peut-être ba 500 milliards. mais 500 milliards c'est quelque chose de c'est très important. Hmm. si on arrive à ça va réduire également une partie des contraintes ça moom c'est vrai c'est mm. clair mais dama ne si tu veux euh, financer l'emploi des jeunes euh, il faudra également nga am une cible et ça c'est une des faiblesses de l'agenda national de transformation premier ministre waxagul avec aujourd'hui en 2024 un taux de de de chômage de 23 pour cent mm-hmm. moom d'ici 2029 ñaata la bëgg taux de chômage bi nekk ko waxu ko et ça il faut qu'il le dise. très bien mais assemblée dina ko leeral. fii waaw dina loolu mais loolu moo tax débat war a am. Mm. parce que toutes ces questions là dañuy xaar moom mi nga xamante ne moom moo yor oto bi di ko dawal mu wax ñu fan la ko jëmee ak yan objectif yan indicateur macroéconomique la bëgg a atteindre et loolu mooy tax bu deux mille vingt neuf jotee. Mm. ñu mën a xam ndax est-ce que le plan a été pertinent wala il n'a a été pertinent ñu xam. kon docteur régime bi rassuré wu la. non du mën a rassuré wu ma du mën a rassuré wu ma man je ne suis pas nihiliste. Okay. et vraiment man bëgg naa ñoom ñu réussir bëgg naa ñoom ñu réussir. Hmm. mais dama la wax ne dafa am ay ay contraintes. ya nga xamante ne ñoo am ci comme comme Sénégal ya nga xamante ne mën na empêcher mën na empêcher à que plan bi mën a yegg fi mu jëm. contrainte yooyu bu ñu ko levé wul mais plan bi du du réussir loolu mooy tax may poser question yooyu. ok et maintenant c'est dans l'opérationnel qu'on va voir effectivement nan la ñuy def pour un une par une ñuy lever contrainte yi. contrainte yi voilà. alors ñu jeexal ak alternative boo am yow booy proposer sénégalais yi au plan économique et social ban gis-gis nga am bu wuteeg bi boo jàpp ne xëy na mën na saafara jafe-jafe.